soo de man noo ma laajee ah te ah di sa borom kër. bu dee sama borom kër nga xam ci loo xam ne man mi di jabaram xamuma ko loo ma koy laajee xanaa bëgg loo wax gisuma ko tey gisuma ko suba te bu ma ko laajati. gis nga sa bàjjen ñëw bii may ñëw ci kër gi du mës a comprendre su ma ñëwee affiché ci kanamam ni kóllëre sidé bi moom laay topp ba léegi du comprendre sa bàjjen xel meef ki yaram wee fi nekk ak bopp bu rëy mais xel xel. zéro. léegi nag. Mhm. dafa am lu ma bëgg. mooy lan. mooy mu gumba moo ko gumba di nga xoolati jigéen ah. déedéet di nga génn bay doxaan. mën la dee wommat di nga tal dara. doo tal dara dara xam nga. Mhm. na bët yee gumba ba ne turus dootul gis. yow daal loolu bëgg. mu toog ci sama wet. ñun jiwuñu ay film di mel ni ay tourne riche wala ay Jackie Chan wala ah, ah, ah, ay Rambo mun am sëy laa la wax te sooda ba lay jëlis ba lay muur di lay indi ci dal nan la fekk. yaa jël risque yooyu. maa koy doxal diine dafa am nañ ciy taxawee yaa may dégg euh, soxna si ñu ngi siyaar. delloo siyaar. naka yi tey. maa ngi teg. alhamdulilah comme ni ma la ko waxee yow diine dafa am norme yuñ koy toppee. alhamdulilah. gis nga tey sëriñ si boo leen doon dajale. Hmm. man maay misi bi. maay messi bi man man maay man ma ko waaw man maay man maay kilifa gi. nee nañ ma la wax yàlla ni waaw. waaw léegi nag. Hmm. xaaral ma wax ak euh, Bundux. bisu daa am lu ma lay ñaan fi sabilillah xam nga sama vidéo yi nga xamante ni mu ngi sa téléphone yëpp sax mën naa bañ a daj mais yi ma la wanee ginnaaw noonu sama xott yi mooy yi ma doon pipat yi ah mooy mooy bi may bi ma wan la ginnaaw la ma wane ginnaaw la. Pigman, mọi You Bye, see you